déedéet wàcceeg gars yi duma la de. dañ koy zoom rek. yaa gis

Very good, very good. waaw ndax suñu la ci am na xam nga moo koy tënk bu ñu ñëwee yëpp yëpp mooy baax yëpp yëpp ñu ngi ko te ñu ngi koy doon xanaa da nga xam ne moom lañ ñëw woon parce que boo waree dana Wanafunzi ndio kesho pamoja.

Thank you.

non non Well, meetings. Thank

mesure transversal léegi su ma yor Aşağıda arkada da var. Kız kadar. Ayı da bir mutfakta. Orada dört tane bir sası. Pardon, pardon, pardon.

pour def foofu confiance à xam ne moom mooy sàmm bi ñu ñu mën a moom ñooy apprécié moom ñooy apprécié ak sàmm bi ak sàmm bi très très bien. je pense que boo ko defee ren yoon boo ko def xam وأراد الكبر إلى فضله والناس لا يدرك الناس ولا ولا بيجي Gracias. Oh.